Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñoo leen di may seen revue de presse. jàngeen jëf li ci yéene kaay ñuy tàmbaleeg réew mi quotidien muy wax a ci juróom-ñaareelu édition salon des startup di Afritech démb lañu ko doon amal ci ndakaaru waaye kii di soxna ay Aïssatou Diallo moo tey bi as ndaxte démb moo mujj jël li nga xamante ne moom mooy premier lauréat 4.0 muy prix du futuriste mu jëmmal lu am solo jëm ci wàllub xeex li nga xamante ne moom mooy jàngoroy cancer syndicat bi yamu ca ne kon démb xew-xew bi daal foo ko natt ni ab dayoo weesu na ko ndax état ak i jëwriñam ay partenaires internationaux patronat bi tamit ñëpp wuy si wooteek njiital MEDES di Mbagnick Diop mu mel ni kon luñ doon wut di objectif bi MEDES ak cercle des jeunes entrepreneurs daal dinañ koy matal Le Soleil di xam le ni matal nañu li nga xamante ne moom lañ doon yootu tamit ca Sangomar muy téeméeri junni baril pétrole yi nga xamante ne moom la ñu bëggoon liggéey bis bu yàlla sàkk te jamono ji loolee ñu ngi koy matal yéene kaay aan bi di xam ne ni kon njiitu réew mi Bassirou Diomaye fay dalal na ci sax kii di PCA bu Woodside lu toll ci juróomi milliards de dollars la ñu daal di investir jamono ji te projet bi tamit lu ëpp ñeenti junni xëy moom la daal di créer jamono ji mu nekk kon lu am solo ngir doomu réew mi dogal bi moom am na solo lool ngir Barthélemy Diaz ak Ousmane Sonko le témoin yéen kay di addu jëmale ko ci législative yu ñu dëgmal di xam ne ni kon ñaari tête de liste yooyu mujj gi daañu bokk ci xëccoo gi ndax conseil démb gantal bi nga xamante moom la coalition takku wàllu Sénégal ak ànd liggéey suñu réew déposé woon ngir gàntal candidature premier ministre bi ak meeru ndakaaru bi Vox Populi ne ko Sonko kay ak Barthélémy Diaz dëggal nañu ni ñoom ñooy doon tête de liste Pastef ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa sàmm sa kàddu ci beneen fànn wa yéene bi di wax ci coow li nga xamante ne kon juddu na diggante Macky Sall ak Amadou Ba jëm ci élection législative yi ndax kii di tête de liste takku wàllu Sénégal ngàll na ay tuuma yu bëri ci ki nga xamante ne moom moo jiite coalition jàmm ak njëriñ moom Macky Sall di ŋàññ li nga xamante ne moom mooy ñàkk dëggu bi mu nemmeeku ci Amadou Ba ay njuuj njaaj sax la jàpp ni def na ko ci intercoalition bi nga xamante ne namoon nañ ko jëmmal ca diwaan yu bëri rawatina ca géejawaay géejawaay googee moo jur coow li bu ñu sukkandikoo ci bis bi la jour te ki ko waral du kenn ku dul Néné Fatoumata Tall mi nga xamante ne kon Amadou Ba daf ko daal di investir tamit ci listam fekk nekkoon na ba noppi ci coalition takku wàllu moo tax APR ci biir yéene bi di ñu daal di gàntal listam ca diwaanub Géejawaay coow li am diggante coalition Macky ak bu Amadou Ba enquête yéeni kaay daf ci jàngatee ni ñoo ngay mel ni ñuy faat seen bopp jëmale ko ci élection législative yu ñu dëgmal ndax APR ci wàllu boppam dogal gi mu jël mooy bañ a demati ci intercoalition digganteem ak Amadou Ba suñu naataango yi di xam ne ni kon xeex bi yamul ci ñoom rek ndax AFP bu Moustapha Niass yi tamit ma ngay fippu di ŋàññi doxalin bi nga xamante ne Amadou Ba mu ngi koy def muy dogal yi muy jël moom cundung concert bi nga xamante ne mu ngi koy amal loolu tax na ba ñu daal di keneen kuy yëglu muy Abdoulaye Dieye mi nga xamante ne moo nekkoon tête de liste départementale ca diwaanub Thiès bu coalition jàmm ak njëriñ mujj naa gedd beddeeku ci élection législative yi yi la élection législative Walf Quotidien lim ci nemmeeku mooy ay liste yu bëri ay xeetub démission waaye tamit ay bulletins yi nga xamante ne dinañu niroo lool moo tax yéene kay Walfadjri bi jàpp ni jaxasoo moom du ci ñàkk rawatina ci xelu ñi nga xamante ne ñoom ñooy aji wote yi le quotidien certification bu Acer ak Power EPC ndax nee na ba léegi dara leeragul ci ni ñu jëfandikoo fanweer ak juróom-ñaari milliards yi ci koppar gi nga xamante ne kon dañu jàpp ni moom la ñu jëfandikoo ngir door li nga xamante ne moom mooy projet bi ci boppam koppar gi nga xamante ne moom la ñu dooree projet bi Banque Santander jamono ji tembe lu muy sàkku mooy lu leer ci nañu ko jëfandikoo na Mamour Diallo jëfandikoo 94 milliards yi nga xamante ne juróon na fi coow jàpp leen ni ba léegi pënd gi wëreegul ndax l'observateur fësal na kàdduk maître Khouraychi Ba di avocat Ousmane Sonko muy yëgle ni coow loolee kon mujj gi tàbbi na ca parquet financier yéenekaay groupe Futur Média bi di wax taxawaay bi nga xamante ne premier ministre war na ko ci am ndax moom mi boo moyul dinañ ko convoqué ci enquête yi enquête yu ñeel contrat 78 milliards yi nga xamante ne moo soxal gendarmerie les échos moo ngi ñuy yëgal ni Bassirou Diomaye Faye jamono ji dafa mel ni doxalinu Macky Sall ak général musa fal ci boppam la bëgg càmbar ndax kilifa yi yi ñu ngeen jot ni ñàkk leerange muy transparence am na ci doxalinu marché boobule bu njaaw la ñu njort ni Jigi Diop def na ko ci deniers publics lu toll ci fanweeri million moo taxit moom dage bi ak fournisseurs yi yëpp Les ko mu ngi xamal ni kon teg nañ leen loxo source a di ko dëggal ne Jigi Diop jamono ji mu ngi ca garde à vue libération càmbar recette fiscale yi nga xamante ne moom la ñu nemmeeku ni yokk na jamono ji lu tollu ci téeméer ak juróom fukk ak ñeenti milliards ci suñu koppar yéenekaay bi teg ci ni impôt yi tukkee ci société yi tamit yokk na lu jege juróom fukki milliards ci CFA ca jamono jooje subvention yi yi ñeel état bu Sénégal ca kudd wàññeeku na lu toll ci fukki milliards Sud Quotidien mi xëy ak xibaar bi di xam ne ni kon pression moom nemmeeku nañ ko ci campus bu ndakaaru bi ndaxam Pape Thiaw ak i goneyam daañu am pression Rewmi Sport mi dikkaat ci jongante bi nga xamante ne moom la ñuy xaar tey diggante Sénégal ak Malawi ca Diamniadio yéenekaay bi di xam ne ni kon entraîneur bu yees bi jamono ji liy mëbëtam mooy fexe ba jekkilaat tooginam ak jonganteem bu njëkk bi nga xamante ne supporters yi ñu ngi koy a jongante